o oh, man euh, maa ngi tudd baaw a Babacar Diouf nekk spécialiste suivi projet infrastructure yi nga xam ne Banque africaine de développement da koy financé fii sow Afrique sow jant intercollectif bi nga xam ne moo regroupé collectif yi autoroute Dakar Tivaouane Saint-Louis affecté depuis ay weer dañ leen di dégg si média yi ak si ndaje yi ñuy ñuy ñuy naqarlu li nga xam ne autorité yi ak euh, commission de recensement des impenses bi ñu ngi koy def moo tax tey ñu initier ndaje bii nii pour pour euh, échanger ak ñoom tàggat leen si li nga xam ne Banque africaine de développement moom la digle si wàllum réinstallation et volontaire réinstallation juste et préalable foofu mën nañ leen gunge nag ñu jéggi leen dem wuti tappe si yeneen tool pour mën leen a forcer ñu appliquer li nga xam ne mooy mooy clause contractuelle yi nga xam ne moo nekk si plan d'action installation waaw plainte lay doon plainte lay doon plaidoyer lay doon ak yeneen stratégie yoo xam ne dinañ ko utiliser pour daal ñoom li nga xam ne mooy seen ak ak seen yelleef ñu mun koo respecter li ñuy wax nii bon li muy plan d'action réinstallation muy étude d'impact bu ñu ko valider ba publi publier ko si site banque africaine de développement ça devient contractuel maanaam les parties dañoo am obligation utiliser wu maanaam tey mënoo wax ne par exemple Taabu Mango yaa ngi koy indemniser soixante quinze mille si part bi publier ba ñu approuver projet bi ensuite nga ñëw di fay par exemple cinquante mille loolu moom c' une violation des des politiques et des de la passe donc li ñu wax bi yëpp dinañ. tag dinañ jël information bi dinañ ko gëstu approfondir ko ensuite euh, lu mu laaj aussi dinañ leen revenir si ay conseil ak ak ay appui